salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi ñu ngi lay fay noo def. naka préparation corte bi ak jaay bi. a ah, ça ñu ngi sant de ñu ngi ñu ngi ci kawam. ñu ngi ci kawam waaw. yan tissu ñoo nekk à la mode. Euh, brodé paquet yi brodé paquet cinq yaar yi ñu koy woowee pirxe waaw. Dubaï Chine ça dépend rek am na tamit yu Autriche yi Mm-hmm. à part boobu amul beneen boo xam ne également clients yi dañ koy laajte yooyu. si euh, til dañ koy jënd soit Paris yooyu yëpp yu xew la mbasin tamit comme toujours ak brode mm-hmm. euh, mbaa client yi ñu ngi ñëw. nànk-nànk rek xam dañuy comprendre ak contexte corona bi moom ak dëkk bi fu mu toll lu bëri wàññeeku na waaw sentir nañ ni daal ni dëkk bi metti na xaalis amul waaw. par rapport ak daaw également am na avancement. pas du tout moi je trouve que de moo gën pire que daaw. Mhm. waaw vraiment daal sentir nañu dëkk bi nit ñi amuñu xaalis amuñu xaalis. Mhm. kon loolu mu ngi leen di affecté par rapport parce que da ngeen loué place yi également di ci fay louage ak yi ni mel donc est-ce que du leen def benn impact. ah bien sûr impacté nañ bu baax sax parce que indi sa marchandise tamit daanaka profit bi nga ci doon yaakaar sax dootoo ko amati parce que da ngay xam ni nit ñi bëgg nañ waaye mënuñu. liñ daan jënd tamit day wàññeeku bu baax ñu doon liggéey ñu bëri liggéeyatuñu serrer la ceinture moo fi am kon boog yow itam dañ koy sentir bu baax ñun ñi nekk ci secteur informel bi ñi nekk ci commerce bi ñun ñoo ko gën a sentir waaw. est-ce que du cher ay un peu marchandise bi également moo moo tax client yi di xaw a daw dem yu di mel. pas du tout lu cher amu fi ndax lépp la ñu wàññi ñii su chéré sax da nga leen euh, dañ dul jënd dañ dul jënd da nga doon jaayee lu cher da nga obligé wàññi ko casser prix bi ci digg bi. waaw fii daal marché bi wax dëgg te lu cher amul fii lépp abordable. Mhm. kon lay wax euh, clients yi ñuy seetaan actuellement. nañ ñëw nañ ñëw bourse yëpp loo mënti am soo fi ñëwee di nga am euh, di nga am tissu daal di nga am tissu waaw. di woo ñëw xool ci place yi ñëw défilé xool lu ñu bëgg rek ñu jël ko. effectivement nañ ñëw su ñëwee ñu am lu ñu bëgg ci njëg bu ñu am tamit ndax wàññi nañ lépp ci wanteer daal la nekk. Mhm. loo bëggoon jeexalee rek. Euh, di wax tamit euh, nguur gi nañu gestu commerçant yi nañu gestu commerçant yi bu baax parce que métti na ci ñun indi sa bagage war a fay dédouanement amoo ndimbal ci nguur gi ak corona bi dem ak dikk bi lépp taxaw gisuñu benn ndimbal ci ñoom daal waaw. Euh, préparation bi de moom ñu ngi ci de tissu yi moom lu dem ci métrage coton bi double largeur bi moom dox na. waaw pirxa yi aussi euh, mooy de cinq yaar yi yooyu moom macha allah euh, yëngu nañ ci bu baax a baax a baax waaw yëngu nañ ci bu baax a baax. daal ñoo nekk à la mode comme actuellement. waaw moom moo nekk à la mode moom moo nekk a la mode sincèrement. kon client yaa ngi jënd si bu baax a baax. waaw waaw moom euh, am nañu yuñ ci jot a jënd moom bu baax a baax a baax. Mhm. am na yow li ngay faral di jaay ban tissu ngay faral di gën a jaay lu bari bari. lu bari bari de comme koto double largeur. même koto lal sor normal aussi dema koy jaay ak borodé cinq yaar yi ñuy wax pirxa yi waaw yooyu moom macha allah yëngu nañ ci bu baax a baax a baax. kon daal client yi ñu ñëw di jënd si fi may waxee yow nii. waaw waaw client yi moom ñu ngi ciy laal bu baax a baax ñu ngi ciy laal bu baax a baax. Mhm. ci wàllum tissu nag wala doo koy jaay. non tissu góor nag euh, li ma koy jaay taxul mu bari noonu quoi booy xool lii rek fii laa fil bi rek laa ci am quoi moom laa ci am waa mais mais xale yu góor ñu ngi jënd si bu baax baax. waaw waaw filaafil bi am naa filaafil jasneer bu ñuy wax filaafil jasneer mhm. boobu xale yu góor yi ñu ngi koy jënd bu baax a baax a baax boobu tamit rafet na to macha allah mucc na ayib daal waaw. ba seerul rek. non seerul seerul. seerul moom macha allah boobu moom 2500 rek. ba 3000 rek. 3000 2500. waaw moom lay jaar. waaw macha allah boobu moom yomb na moom. sama genre gi mën nañ ci jënd quoi. bu baax a baax <laughs> sasaar yi moom. Ah. macha allah mën nañ ciy jënd waaw. tey lay wax client yi nga xam ne actuellement dañ naan yëre yi dafa cher du ñu dem marché fu jamono toll lan ngeen di wax. non ñooñu moom dama leen di wax ne ñuy góorgóorlu ci euh, ñëw marché di waxaale ñu leen di wàññil prix yi ndax cee client c'est le ñoom la ñu am buñ ñëwee moom dinañ leen defal un bon prix jëm leen a wàññil ba mu baax te ka xam nañu dëkk bi bu mu toll moom mooy loolu ci ñëpp la handicapé kon nag. nañ ñëw marché rek di waxaale ñu leen di wàññil di leen jaay. kon daal bépp client lépp loo fi indi ne di nga am tissu. waaw bépp client bu fi mën a ñëw moom doo ak loxoy neen waaw loolu moom assuré naa c'est que tissu bari na fi to mom seerul mom sincèrement parler ah oui. korte ren ak korte daw am na différence un peu ci wàllum peut-être doxalin daaw ñu ngi woon ci euh, lii di euh, lii di nga xam ne moo feu ak yi mel donc ren si nekkuñ ci loolu peut-être que njaay bi dina am amélioration. Oh, peut-être euh, l'année passée ak. Ane bi mom xawna am différence c'est que année bi mom mën nañu wax ne xëñ njaay am na tuti tuuti nii mais fuñu joggé mom moom na handicapé mom xawoon na handicapé sincèrement parler wa xawoon naa handicapé trop mom lo bëgg jéxalé rek. ah wa lima bëgg jéxalé moy ñu wax client yi rek ñu dugg ci ci bir ASLM ñu jëm leen wañil tisi jaay leen prix yu acceptable ñu sañ sañse bu rafet ah wa soxna ci ma lay fay. tur bi. Euh, Khady. naka préparation Korité bi. ah ñu ngi si de ñu ngi si kawam de. Mhm. yan ci yi ñoo nekk à la mode. ren ah instant bi mom xam nga Korité bi mom dañ koy oyofal en général xalé lañuy jëndal mais li fi nek à la mode mooy brodé yi pirxe yi 5 yaar ak voile brodé ak lepp luy coton dal waaw. ren daal yooyu ñoo génn. yooyu daal moo génn pour l'instant mom waaw. tangor bi la wala. waaw ah, tangor bi ak koor gi aussi lolu moo tax. ndax euh, xam nga rek ak couvre kii yu ñu jugee corona waa coronavirus beeg yooyu xaalis amul moo tax ay tissus léger rek yu yomb daal moo fi wàcc waaw. mais peut-être clients yi ñu ngi ñëw di jënd si. waa ñu ngi ñëw nànk-nànk rek gis nga nii. <laughs> yaa ngi reede waxal lu leer rek ñu ngi ñëw nànk-nànk ñu ngi sant bu baax daal waaw. xaalis baa ngi dugg bu baax. ah ñu ngi sant ñu ngi sant bu baax sax waaw ñu ngi sant bu baax. jigéen ñi gën a jënd si si. jigéen ñi góor aussi dañuy di jënd di jënd seen i di jënd seen i doom di jënd seen bopp aussi parce que fii moom lépp la jaay tissu am na brodé yaa ngi fii jesner lépp am na daal ku fi dugg moom gis bopp incha allah waaw yaa ngi ne am na caro suisse bi am na coton bi am na daar xudus yooyu yëpp am na fi te prix abordable la super cent am na yëpp am na déggoo man la fii xel comme boutique boo duggee kay doo génnaat lépp nga fi fekk incha allah yombal njaboot bi quoi ma yombal njaboot dimbal njaboot sama genre yi ñu bëgg yow moom boo bëgg rek incha allah ma jox la ko waaw bu soobee yàlla lan ngay wax client yi bëgg a ñëw fi client yi xanaa wax leen ñu ñëw rek Khelcom boutique moom ruquma ba incha allah ku fi dugg moom ba lépp loo fi bëgg daal di nga ko am incha allah mbasin yaa ngi fi jëseer am na pirxa mbubu sañsa yu 200 mille am na original bi Dubaay bi yëpp am na fi daal coton yeeg voile brodé lépp am na ku ku fi dugg daal di nga gis sa bopp seerul daal seerul prix abordable la ñuy def waaw accessible pour ñëpp accessible pour ñëpp incha allah waaw loo bëgg a jeexle rek. Euh, xanaa di wax nañ ñëw si wanteer bi parce que instant yi wàcce fi benn voile brodé nouveauté di ko wanteer pour ñëpp daal ku fi dugg daal gis sa bopp rek sañse waa loolu la ñuy wax. tissu fan ngeen fi original waaw original ñu si place bi ñu demuñu fenn ku jaay loo neexu bu neexee nga ñëwaat incha allah waaw maa wax ñu ngi fii. préparation bi gis nga ñu ngi si kawam nekk si nii euh, dañoo jógee ci Covid te dëkk bi neexul moo tax lépp loo xamante ne dañ ko doon jaayee prix cher instant bi toll yi dañ ko ji ñu toll réew mi neexul waaw pour bëgg ñëpp solo rek waaw naka naka client ñu ngi parce que yéen da lal ay di jaay affaire yu waa client waaw ñu ngi ñëw ndànk-ndànk quoi client yi moom waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi ñëw ndànk-ndànk quoi waaw. xam yan genre nga nga man ay brodé ak ay val brodé ak ay mbassin riche ay brodé autorise ay jour xam nga genre boobu yëpp maa ngi koy wanteer fii quoi waaw. client yi ñu ngi ñëw bu baax a baax. waaw client yi waaw ñu ngi sant yàlla waaw waaw ñu ngi taxale daal waaw mu ngi am ndànk-ndànk daal waaw waaw ñu ngi am bu baax. baa seerul. non non seerul waaw ñun moom dañuy wanteer ah prix bi am na 3000 am na 2000 am na 1500 waaw genre boobu noonu daal am na 1000 francs jaayuñu daal lu seer waaw ñun daal dañuy wante daal ndimbal jaboot waaw ndimbal jaboot daal ñun daal ñooy ndimbal jaboot bi waaw ñun daal loolu fi nekkee jaay yomb par rapport daaw également am avancement parce que ren également bàyyi nañ lépp ñu ngi jënd ay yére di ñëw li nga fi ni mel waaw waaw waaw am am na am na tuuti changement waaw am na tuuti changement parce que li ñu am nii bénéfice la quoi parce que amuñu ko woon waaw nit ki nag boo amee loo xam ne moo ko woon daanaka loolu bénéfice lay doon kon nag mën nañu jàpp ne li bénéfice la ndax ñu ngi sant baax ndax amuñu ko woon daa heure daal metti woon na mais ren alhamdulilah ñu baax waaw ay tissu góor doo koy jaay ay tissu góor dañ ko doon jaay mais dañ koo jeexal nag instant bi waaw waaw instant waaw bagage yu bëri dafa xaw a wàññeeku waaw kon lay wax client yi rek ñoom ñun ñoom lañ fi nekkal waaw ñu ne amuñu kenn ku dul ñoom it amuñu kenn ku dul ñun waaw noonu demee marché asalam daal la ngi waay bëgg am na fi waaw lu waay bëgg am na fi prix daa cher moom amul ah non prix cher am na prix cher am na daal waaw parce que marché moo demee noonu lii day cher lii du cher waaw ñun daal ñoo fi nekkal waa ndimbal njaboot daal waaw jaayef ñu ngi leen di remercier ah liggéey bi solo waaw waaw waa defal yàlla yi comme ni ko sama waaj waxee maam Bamba waaw ñooy defal waa defal yàlla yi daal ñu ni kontaan nañ si yéen daal waaw ñu ngi leen di remercier bu baax. waa Dakar à l'instant bëgg naa loo wax ci Dakar instant. mais dama ni ca kaw ca kanam. lamp yi tàkk na. nga ràññ mooy site bu baax bi ndekete. man mosuma yootatu nekk site bu wóor baa ngi nii sit bii nga xamante ni boo ko dégloo sam xel dal set nanu wir nanu te la ñuy wax baax na e information yu baax dañuy joxe Dakar a ngi ni Dakar Instant la ñuy bëggee ci Sénégal. Dakar Instant, vivons l'instant.